alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa radiyallahu an bahjati al-ulama'i hujjati al-arifina imami al-murabbina ghawsi al-laji'ina al-babi al-wasi'i li kulli man yurid al-wuluj ila hadrati qudsihi wallazi yabtadiu fi madrasatihi ahlu nihaaya wa yakmulu bi jarradi ishaaratihi ahlu lbidaaya albaabi lwaasii gawsi lzamaani wa nafi lbilaadi yaaquti lxaqi ruuxi lmacaani mawlaana cheikh alislaam alxaaji ibrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa xadrata cheikhi احضري لي احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر mbokk yi fi daje commencé ko ci président fédération bi ak taalibe yépp teg ci samay doom teg ci sama rafiqu dar bi di àndandoor yi démb njëkk tey ak kilifaay jataay yi muqaddam yi ak taalibe yi nga xam ne soobu nañ ba jariñu te doyaluñ ak ñeqe meem jege te war a xam lan moo nekk ci biir chambre à coucher bi gannaaw buñ yegsee ba ci saal bi xet gi di leen xeeñ ci biir te duggaguñ ñu soxla ku ubbi rideau bi ñu jàll ci chambre à coucher bi tëdd ci lal bi dugg ci toilette bi raxasaat seen yaram te raxasee sa yaram ci baatin dafay leeralaale sa baatin soo génnee nekk ku sell ki nga xam ne koo romb xet gi xeeñ ko ci sa jëf ci sa jikko ak ci sa melokaan maa ngi nuyu ñëpp di wax ne thème bi jiitu woon na daayira Njolofeen organiser ko semaine bale passé fasaaxa gi nekku fii waaye yàlla kum sol ci sa nopp sol ko ci sa xaatir da nga jëriñu yàlla na ko def ci yéen may leen nopp buy dégg gannaaw wax nopp buy dégg gannaaw wax tuuti li ñu wax du tere borom jëriñu yàlla na yàlla def loolu ci yéen kon maa ngi ndokkeel fédération bi nga xam ne jàpp na guddik le 24 décembre jëm la 25 décembre muy jour boo xam ne daf naan attention du ma bàyyi nit ñu ñu nelaw seen kër yi yoon ba passé dañ ma waxoon ne naa waxtaan ci sëriñ taalibe luy jikko sëriñ luy taal jikkoy taalibe nan lañ war a àndee pour taalibe jariñu gannaaw bu sëriñ jëriñoo ma ne woon sëriñ ñetti sëriñ moo am bii jàngale ak sëriñ bi lay sóob ak sëriñ bi nga xam ne bu la sóobee ba bëppaat la nga dellu siyaat mu mën a jilaat ak yow nag ñal wi di dem ak yow taalibe nag mooy ki feebar soxla ku ko faj te amut garab ci mbuusam gi te soxla naa wér joxe woon naa ci exemple yu bari waxoon naa ci ne dama mës a dégg oustaz Barham Diop mu wax ne nañ bàyyi ndax nit ki war naa wut sëriñ nañ jël ndax ki feebar bëgg naa wér su dee ne waaw bëgg naa wér kon lui il lui faut médecin kooku dafa war a am médecin bu koy faj kooku dem wuti sëriñ dafa war ci moom kooku dem uti docteur bu ko faj dafa wér war ci moom docteur bi nag su ñëwee dafa war a am garab yi dafa war a mën a diagnostiquer feebar bi nekk ci moom su demee ba ne kii feebar bi lii moo ko jot feebar bii jot ko garab yii moo ci baax garab yooyu baax ci itam du nu ko neex naane nii la ko war a naane parce que lii la xolam àttan lii la deretam àttan lii la yaxam àttan lii la système nerveux attan àttan cetera parce que pourtant garab yi ngay jox yépp garab bu nekk am na poison ci biir li may wax nii maa ngi koy wax sous contrôle des médecins wala sous contrôle ci bépp laborantin boo xam ne yaa ngi dox garab boo gis gis nga garab bi wàccee jaan ju màtt nit tooke jaan la ñuy defaree garab gi pikiir bi ñuy pikiir ku jaan màtt pour mu wàcc garab gi ñu koy pikiir tooke jaan la ñuy def ci biir moom la ñuy traité su duggee ci biir dafay yootu ji mbokkam ma parce que ku ci nekk bu jógee mbokkam lay seet seeti ku nekk bu jógee mbokkam lay seeti su duggee rek dafay daw jëm ci mbokkam yi te mi ngi ànd ak loo xam ne su demee rey loola su yeggee rey loola su ko defee mbokk mi lañ jël utiliser ko olof yi danañ koy léebu dañuy wax ne garab dañoo indi weñ gu rëy teg mu ne lii laal la ñu ne ko dañ laa bëgg a daane mu ree ñu ne ko ragaloo daanu mu ne ankañ waaye jëlagu leen yoon wi waaye bañ jëlee faj daal di jël njuural sémmiñ mu jooy ñu ne ko lan la mu ne bi ci sama mbokk daa bokkee rek dootuma fi taxaw parce que faccu kese wi mënu dara ci garab gi waaye bu àndeek njuur ñu weyal ko ko téye ko di gor bu yàggee moom mu daanu mu ne ba ca mbokkam bokkee keroog la xam ne moom tey dana daanu donc bépp garab booy naan yow muy siro bi muy comprimé bi muy piqûre bi ñu lay sol muy anesthésie bu ñu lay def muy lu ñu lay raay comme wala lu ñu lay raay comme diw benn bu nekk ànd naag tooke benn bu nekk itam ànd naag loo xam ne ni mu mën a fajee noonu la mën a loree soo ko jaaralewut fi mu war a jaar donc un bon médecin mooy ku lay wax ne la sa garab gi dee ko jël comprimé ak laa nuit ñetti yoon par bés wala benn yoon par bés wala deux fois par bés ah attention garab gi war nañ cee naan ñaari comprimé ci bés bi waaye yow sa xol bi moo oyof soo naanee ñaari comprimé par dana fa dégager feebar bi mais dana la indilaat feebaru xol nga dëppaat di faju xol kon deel jël benn su la waroon a faj deux comprimés yi sur un mois étaleel faju bi dans deux mois mu éradiquer feebar bi ci sa yaram mu dañ sëriñ bi tam nag ni médecin bi mel noonu la war a mel gis nga sëriñ du juddu sëriñ du juddu sama baay sëriñ la jàngoo li sa baay jàng doo téye kurus gi sa baay daan téye doo wax li sa baay daan wax meloo ni sa baay ku ànd ak yow torox dana dee ci àddina yàqu ci àddina te bu dee dem safara parce que yoon wam lay jaarale mooy yooni ñoñ perte ñi kenn rek kay sëriñ mooy ki xam te jub te bëgg a jubal kooku moo yore qualité sëriñ taalibe itam mooy ki bëgg a jub mooy ki bëgg a xam mooy ki bëgg a baax mooy ki bëgg a texe yoon wi réer ko parce que loolu ca yàlla rek la nekk moom mu soxla kon yàlla war a seeti yàlla mu ñëw téye koo xam ne kookoo ko gën a soxla yàlla te gën koo réere yàlla te kooku amul ngor ak wax ko ne ko manuma laa yóbbu mu lambar lambari topp ko rek lu mu liggéey jox ko Cheikh Ibrahima dafa waxoon ne sama taalibe daal ki ci bëgg a ñu day ñëw ci man waaye nag taalibe bu bëgg a jariñu mu dem ci sëriñam benn yoon moo gën mu dem ci boromam junne yoon aarif billaah yépp xam nañ ne temps boo demee ci yàlla fanaaw rek nga fay jëlee fanaa waxaal nga fay jëlee dana neex ci xol bi waaye doo fa xamee dara fatt fatti yuuxu rongoñ yi toq bëqate yi génn nga daal di dellu siyaat mais yokkuwoo dara soo demee toog ci sëriñ bi mu waat la jàngal la tere la lu bon digal la lu baax kon foofa da faa jariñoo bien que ci yàlla nga koy ñëwee waaye bi nga ko ñëwee ci yàlla bagaas yàlla la la jox kon nga dem ci yàlla indirectement jaaree ko ci jaaruwaay moo gën nga ñëw bëgg a dem directement ci yàlla danga nga njomb ñoom bi ba dee te doo ca yegg dafa am benn léeb bu gaa yi di wax dañuy wax ne ku jëm ci yàlla su jëlee avion naaw dundam bi yépp du yegg ci yàlla mais su jógee di dox ak tànkam bu jéegoo benn jéego romb yàlla ala kulli xaalin su fekkee ne sëriñ buy jàngale téere yi la war naa maîtriser téere yi war naa xam àtte yi ci téere yi war na mën a am pédagogie li muy joxe gis nga da nga fi fekk koo xam ne téere jeexal na leen mais mënu laa jàngal benn masala nga dégg benn masala mënu la koo jàngal nga dégg. beneen sëriñ bi mooy sëriñ bi lay jox tariqa sëriñ bi lay jox tariqa su amul tariqa moom lu mu lay jox su xamul boo jama jamajee nu mu koy defaree lu mu lay jox. su xamut awqaat yi lu mu lay jox su xamut wirdu wi soo ci nekkee ni nga war a mel lu mu lay jox amoo chance taseeg sëriñ mais taseeg ku bëgg daraja ku bëgg daraja nag poson la ci biir société danaa koy nettali dama dem Kédougou benn xale bu jigéen ne ma sëriñ bi ñaanal ma man daal sama papa sama yaay bëgguñ may demati sama kër seexu mu rab bi te man maa ñàkk ba maa bàyyi foofu ma ne ko lu tax mënoo bàyyi foofu mu ne ma parce que dama fay dund yàlla ma daal di koy sànni ñaari laaj ma gis ne kii bagaasam yi karañ na li mu gàddu sax soow la waaye dañ cee sotti loxob suuf yëngal temps boo naanee soow mu mel noonu buñ la waxee muut kati suuf neel am soo buñ sotti loxo suuf yëngal temps boo ko naanee buñ la waxee muutkati suuf neel naam kenn tooñu la muutkati suufu nga ñu dem ba mu yàgg ma ne ko moom moo la jox tariqa tijaan wala keneen moo la jox tariqa tijaan mu ne non man jëlaguma tariqa tijaan ma ne ko ku la tarbiya mu ne ma moom ma ne ko xam na ne jëloo tariqa tijaan mu ne ma waaw xam na ko parce que man bi ma yeneen xale yi di critiquer ci loolu bi ma demee wax ko ko daf ne ma ñaari jotewuñ dara Cheikh Ibrahima sans Cheikh na Ahmed Tidiane. foo ay tëbbam di jógee nga bëgg a éliminer Cheikh dem ci Baye Niass directement mais c'est pas possible kañ ooyee foofa muqaddam du muqaddam mu xajam la il n'est pas digne du nom warta mën a nekk muqaddamu tariqa Tidiane ku doonu Tidiane mënta nekk mu Cheikh Ibrahima Niass c'est pas possible bàyyi du yóbbu ci yàlla ñàkkee teggiin yónnant bi moo tax du jàllale ku duur jullit du ñàkk teggin Cheikhu Tidiane moo tax bagaasam yim yore ci maarifatu billaahi ku du Tidiane du la ci jëriñ kon il faut que nit ki balaa mat sëriñ ci yàlla nag laay wax il faut mu nekk sëriñ buy jàngale il faut mu nekk sëriñ bu am ndigal ci jox la tariqa Tidiane il faut mu am sëriñ ndigal ci jox la sóob la ci yàlla mais ku amul ndigal kum jox ndigal amagoo ndigal gis nga su ma fi toogoon rek daal di ne Amadou sama doom ji yow daal xaw nga fee def ay at te amoo séjour dem toog ci machine bi rek bind tàppe may naa la séjour bind bind daal di dóor tampon daal di signé jox ko ne ko alkaati bu tase yow jox ko sooy dem ci diitaay yi di uti liggéey woneel maa la may séjour buñ ne ko nuus foo ko jëlee mu ne ci baytu ci maag moom yëpp danañ ñu utal avocat parce que awma habilité pour maye loolu parce que duut man maa war a maye loolu kiñ ko may ak ki ko ko may yépp ci njuumte lañ nekk moo tax kenn duut sëriñ lu dul ko yore bagage si sëriñ jikko ya ak xam nga les deux à la fois waxoon naa keroog ne sëriñ bi su ñëwee taalibe bi bu yegsee ci moom rek soo mënta xàmmee ci nit ñi seen psychologie mënoo yar kenn waxoon naa fa ne téeméeri nag nga di leen sàmm benn et doy na mais téeméeri nit boo leen di sàmm téeméeri méthode nga war a am il faut téeméeri et ku nekk ak façon jàngalekat yi xam nañ li may wax par exemple professeur bi su ñëwee ci classe bi su liiree réciter leçon bi réciter leçon wala mu bind ko ci tableau bi su paree bu liire def explication bu gàtt am na élève bu jëli su ca yemee dana lor ñu ëpp ci classe bi parce que taalib mutawassit jariñuwut taalib rabi jariñuwut da ngay ñëw ba ci ab sat suura nga déparé fa su rabi yu jariñoo mutawassit dafay jariñu taalib bi nga xam ne yàlla may na ko zaka jariñu parce que il faut nga descendre ci bas étage bi pour mën a jëlandoor ñëpp kenn du wadd soo mënul loolu matoo sëriñ su nit ki ñëwee ñëwaale rëy nga gis nit ñi ñëw nuyoo moom ñëwut nuyoo nga gis nit ñi summi seen dàll yi ca bunt ba moom summiwut dàllam nga gis ñu ne di leen añ bi te dafa ñëw pour tarbiyu ñu ne di leen añ ñëpp raxasu mu ne est am ngeen kuddu est que am ngeen fourchette nga gis ko mu téye mouchoir am di def nii di fomp te buntab taalibe ci la ñëw nga xam ne kii ku rëy la kooku pour nga yóbbu ko ci yàlla il faut nga fóot ko il faut que réem ngi dañ te ku soxla yàlla nag da ngay wàcc foofu lañ lay jëlee nga door dem fa lañ jëlee woon yónnantu bi gis nga ba muy départ dañ koo jëlee néegam yóbbu ko baytul maqadis mu jiite yónnantu yépp ñu door ko faa jëlee yóbbu ko sidratu muntaha la ko doon yóbbu am incapacité continuer ak moom mais fekk na yegg na foo xam ne ku fa yegg yàlla soxla la yàlla ñoo di mu jàll lee mënatut a dem parce que warta jàll soo mënul loolu nekkoo sëriñ sëriñ dafay xam sëriñ dafay jub sëriñ dafay sell mais koo xam ne mi ngi yore feebari ràmm wérugut moom ci boppam nga ràmm ñëw ne ko saa dama faja man de dañ ne ma yaa fi dàq faj ràmm mais mënta faj ràmm bu ko mënoon wér mënta faj ràmm bu ko mënoon wér moom mi ngi ràmm dëkkee xasenu jabaram a ngay xasenu doomam a ngay xasenu xaritam yaa ngay xasenu nga ñëw ne ko faj ma daf lay yokk feebar lam yore woon sax da koy tibb delloo la ko kon ku yorewut bagage yi jëm ci yàlla mënoo yóbbu kenn ci yàlla mu tax naar gànnaar bi bi mu ñëwee fekk bàyyi a ngi toog mu toog ci wetam bàyyi di jàngale di jàngale ba xaxtandiku taf li deret génn mu gis julli jot bàyyi jiitu ñu dem mu jiite ñu dellu siyaat mu gis bàyyi ma ngay ma ngay sóob ay nit mu gis bàyyi ma ca pirim alxuraan ma mu gis bàyyi ñi fàtt fàtti bañ gàddu leen andi mu dugg ci biir ñu jang-jangee leen indi mu wàccee leen ñoom ñëpp ñu génn di ree reegu ñorut reegoon xam ne c'est inexplicable parce que moom mii ree xamul lu tax muy ree moom mii jooy xamul lu tax muy jooy ñooñu ñëpp génn tey naar bi di xool baay rek ba mu yàgg mun ne ko man yaa ma yéem yow sëriñam njàngale nga wala sëriñam yéege nga waaye yow daal ñaari melokaan yëpp dajee ci yow daal na ko yow mii yaa ma yaa ma gëlëmal nag yow noonu ab iblis bi nit ki nag su fekkee ne sell na xam na jub na am na itte bëgg na nit ñi baax kooku ndonool yónnant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn waaye dafa ñëw toog rek daal dina diw tuur ko ay laajam ci maarifa mu ne ko demal ba guddi bi ñu génne ma ne ko bul ko wax demal ba guddi sëñ bi lim la laaj moom nga xamul du dem ba guddi moo yow yéen a bokk nekk Italie gii fu ngeen tasee rek dana xam bu ma tam ni dafay gën a gudd ci ëllëg sëñ ñu tasee kër Omar Sall mu daal di ko ko teel mu ne ko man nag xam nga yàlla def na ci gétt gi laa bokk nag waaye wax dëgg yàlla man nag kéegu ma mu ne ko ah mu ne kéegu waaye dina ma xay awa sëñ bi ma ne ko mais loolu chance la kanaan doom doomu yónnant àndoon naa bàyyam ca la mu waxoon mais duul ne ku doon doomi nit ku baax rek doon ku baax parce que buy dafay am xetax garab gi amut xetax kon doomi buy bi li olof di wax wuy dafa am guy am wuy am buy ñett la guy garab la wuy mooy doom bi tojogut buy mooy doom bi ci biir ñu di ko macc wala ñu di ko jàmb nguy mooy ngarab su ndaw si loolu mooy asi nguy mais guy amut xetax pourtant doomam ji dafa juddu am xetax wala du noonu waaye moom it mu jur buy buyan ca biiram amut xetax loolu tax yàlla ne dafay jëlee lu dafay jëlee luy dund ci lu dee dafay jëlee lu dee ci lu dund kon taaxu boobu di am sëriñ génnut ci doomu sëriñ mën naa ñàkk amee bagage ci baayam n'est médecin le fils du médecin n'est pas médecin le fils du médecin doomi médecin bi duul médecin fee jàngut ko dafay jaari fa baayam jaar xam li baayam xam door a yore mbub mi baayam sol moom me ndaw daf koy woy mu ne ne doomi docteur laa ñooy gàddu malaat indil la mu ne bu ñu la bu la opéré maa yërëm boobu mu ne maa yërëm ko parce que day dee oto bu gaare ci gaaraas bi tam ñu teggi moteur bi di ko defari nga ñëw daal di ubbi buntu toog di xaar mu fees pour nga dem mais danga fa yàgg te doo dem parce que oto bi dañoo teggi moteur bi li koy yóbbu nekku fa li koy yóbbu nekku fa kañ ngay dem nga bëgg yow mu yóbbu la mais li lay yóbbu dafa paan lu paan da koy teggi dem ci bu wér te nekk ci rang gi te am chauffeur bu mën a dem te xam yoon wi te am droit rang soo yéegee te warta rang itam bu feesee danañ wàccee ñépp bàyyi ne la tànnal sëriñ nga ne ko kuy sëriñ mu ne la nekk expert na nekk nag nit ku ñaw ci xam yàlla bi na nekk ku manal ku matale xam yàlla xam nga luy matale xam yàlla mooy sur les trois étapes de connaissance nga xam ci yàlla sur les trois étapes de connaissance nga xam ci yàlla dangay xam yàlla ci jëmm jëmm ji mooy kan sëñ bi Mohamed mais da ngaa xam tur wi xam jëmm ji loolu moo tax automatiquement bi ma laalee jëmm ji ne la muy koy moo kan rek nga indi tur wi parce que da nga koo xam ci tur mais da koo xam ci jëmm jëmm ji kan la da ngaa xam bàyyi tuuti ci tur xam ko ci jëmm moo tax tey jii ku ñu wax ne joxal ma lii Baye Tuuti su ñëwee du jaawale day ñëw jox ko Baye Tuuti mais Baye Tuuti tey un conférencier la suba nga ñëw fekk Baye Tuuti mu sol blouson nekk ci terrain. nga ne lia ilia yàlla man kii moo niroog ka doon gàmmo Bergamo mais moom la yaa ko xàmmeewut soo xamoon ne Baye Tuuti dafay politique xam ne Baye Tuuti dafay dem ci terrain football xam ne Baye Tuuti dafay gàmmo xam ne Baye Tuuti dafay conférence foo mënti fekk Baye Tuuti da nga xam ne kii la kooku xam nga ko ci tur xam nga ko ci jëmm mais xam nga ko ci melokaat tasarufaatam yi ku àggut foofu yàlla nag matoo mat kenn ci yàlla il faut les trois étapes nga maîtriser ko il faut nga xam yàlla ci jëmm il faut nga xam yàlla ci tur il faut nga xam yàlla ci melokaan mu ne sëriñ boobu ma la wax aw saafam yi ne la kii mooy sëriñ mu ne soo ko gisee nag kooku jox ko sa bopp mais bul jéemati dara nag bul ko waxati nii la bul ko waxati naa la melal ni néew ci loxo ki koy sang néew du wax ndox mi dafa sedd du wax bomboo fii du wax defal ma saabu bee du wax sa njàmpe gi dafa ñaas du wax jàllar bi ma du wax setaguma du wax sedd naa du wax sonn naa bu yëngatoo yow la bu jàllar bi koo yow la fu ndox laal yow la fuñ bomb yow la fuñ jàll noo ba am jeex taalibe bi soxla yàlla su ñëwee ci sëriñ bi noonu la moo tax chéri si moom dafa waxoon ne sëriñ boo gis ay kawteefam soo gisut kawteef yii ci sëriñ mu ne jàppal ne du sëriñ jàppal ne kooku daal bakkanam moo koy ommal xanaa ku bakkanam di ommal nag ku soxla yàlla du fa dem mu ne su fekkee ne kooku amut xam-xamab zahir am xam-xamab baatin mu ne kooku tegal fale rek nga jal ko kajj muy wéy du la jariñ dara sëriñ bi ngay dem ci moom waroo koo fekk mu mel ni xaal xaal day verti ci kaw ba ñépp gis ko nga xar mu xonq ci biir sëriñ du am melokaan yooyu ñaari sëriñ dañoo bokk jàngandoor ci benn sëriñ yaroondoor fa ci yàlla ba jariñu ñoom ñaar ñëpp ku nekk dem sanc dëkk am say taalibe ki yàlla baaxe ko mu tabax jumaam ju rëy am étage am am warwaayam taalibe yi bëri àddiyee ji di bëri muy sol drap yu rafet di kaalawu kaala yu rafet di génn di wax ak nit ñi keneen ka nekk ca digg àll ba dana bay ba dee bala ñoo am ñeneen goo xam ne gerte gi rënd bi sax xal naa manqué mbuum mi dafay manqué gerte nga xam ne mbuumam ñogg la tudd mbuumam ñogg ni mbuum mi di jonkoonee ci kaw cere ji ne ñoggu ñoo gaaral ci kaw nga di ko xëcc mu di la xëcc ndax maa ngi ci rënd loola lay lekk mu dajale lim am daal di koy jox ñenn ñi mag ci taalibeem yi ne leen dem leen ci sëriñ diw ngeen joxal ma ko àddiyee ji ne maa ngi koy ziyaara ngeen wax ko ne ko na ma ñaanal te na ma dénk ñu daal dem toog ba gis sëriñ bi xëy nañ di xaar ba ngoon ñu door a gis sëriñ bi bi sëriñ bi génnee ñu gis fax-faxa ji draa ji niñ ko gomee ak ñi ko dar ba mu yegg si ñu tegal ko piliyaan bi mu toog kii féetee ndeyjoor di upp kii féetee càmmooy di upp ñu ñëw ràmba ci ronam ñu ne ko sëriñ diw moo ñu yónni mooy suñu wasiila moo ne woon nañ la jox àddee ji mu ne nga ñaanal ko yàlla te nga digal mu ne yàlla yàlla barkeel ko jox ko càkkutéefam su ngeen demee ngeen ne nag li ma koy digal ne leen ko mu wàcc mu wàcc àddina ñu génn ba ci biti ñu ne kii moo soof waaye kii am étage am juma ay ñaari ponk la ko tiim di ko ëpp ñun suñ sëriñ a ngi duddu dëddu àddina ñëw dëkk ci digg àll bi ak néegi ñax buy senn di julli ci asi njàkka su ndaw jàngale rek ci la nekk ak ñun ak jaamu yàlla amul lu mu koy digal naan ko ne ko mu dëddu àddina loolu de bu ñu demee bu ñu ko wax sëriñ bi ñu daal di ñëw daal di toog sëriñ bi ne leen jox ngeen ko àddiyee ji ñu ne waaw wax ngeen ko ne mu ñaanal ma mu ne ñaanal na la sa càkkuteef yàlla jox la ko mu ne amin yàlla na ñaanam waxoon naa leen ngeen wax ko tam mu digal ma ñu ne ah de lim ñu digal moom daanaka jarul laa ne lu mu wax ñu ne dafa wax ne nga dëddu àddina mu yëngal bopp bi ne wax na dëgg de moom yàlla daf koo jox àddina waaye yoonam nekku ci faalewul loolu yàlla jox yàllaa ko ko jox waaye faalewul man nag yàlla xañ ma ko te loolu rekk nekk ci sama xol bi gis nga li ma nekk ak yéen ci àll bi yëpp loola moo am rek bëgg xam nga kon sëriñ bi melokaan wi mu wane du moom kooku boo fa toogee jikkoom ji rek la lay walla parce que xol bu dëkk ci yóotu yóotu àddina te nit ñi gëm ne ci yàlla lay yóotu yàlla du ko uyu mukk su ko defee mu dëkk ci miskinam googu rek nag su taxutoon ak taalibe lañ dem foofa moom mu seede wax na dëgg konoon ñoom duñ xam ne seen sëriñ ci loolu la nekk dañ fay def seen dund bi ba seen dund bi jeex ñuy wéy ci walaakaana ku topp ca ñoom di wéy ci walaakaana parce que dañuy xemeem àddina àddina la ñuy kër-këril te du leen uy si parce que fi koy jaaree baaxut àddina boo ko soxlaa te bëgg mu uy si la ngay uy ji àddina àddina jox la boppam mbaa nga uy ji yàlla te sa yoo nekkut ci àddina yàlla jox la ko te doo ko soxla kooku boobu sëriñ xaal la xaal dafa verte ci kaw ne gaa yi maa ngi je suis propre waaye xonq curr ci biir parce que bakkan bi yépp àddina rek la xemem waaye ku war a joxe du denc ku war a joxe du denc xam nga yónnantu bi su toogee di joxe ba li mu yore woon jeex jaabir ñëw génnee mille mille dirham jox ko ko yónnantu bi di séddale di séddale ba mille dirham yi jeex ci tàng-tàng bi te këram ci ntàkkut fa am benn waay bu ñëw daal ne ko li la yàlla jox ngay séddale jox ma ci sama wàll mu ne ko toogal lu yàlla indi ma jox la Omar jóg ne ko sang bi yow da am njaboot waxal nit ñi ne da nga am njaboot yow lu ñu la jox nga séddale ko ma wax kii nga naan ko toogal xaar lu yàlla indi nga jël mu muuñ daal di ne ko looloo tax yàlla wàccee ma fi xam nga lu tax yàlla wàccee ko fi joxe joxe xam-xam joxe jikko ju rafet joxe yar joxe teggiin joxe alal du denc warta denc mu tax Cheikh Ibrahima Niass amul compte te lu nekk di jaar ci loxo lu nekk di jaar ci loxo mais du ko téye su ñëwee mu jàll kooku nag su ne damaa dëddu àddina wér na parce que àddina ñëw na ci moom mais moo ko téyewu mais bu solo jotee bu soloo nga xam ne kii moom xam na luy taar yàlla su dugg ci jotee bu duggee ci nga xam ne kii xam na luy taar mais dara yàqalu ko nelaw dara yàqalu ko nelaw xanaa bëgg nit ñi baax lu rekk ko yàqal nelaw Cheikh na Ahmada Tidiane mu ne da ngaa bëgg xam ban sëriñ moo mën a yóbbu nga ne ko waaw mu ne la mooy sëriñ boo xam ne yàlla teggil na ko kiiraay yi jaar digganteem ak boromam yépp Cheikh na Ahmada Tidiane mu ne sëriñ bi mat sëriñ mooy koo xam ne rufi anhu alxijab ujub wala alxijaab bépp kiiraay buy jaar diggante jaam bi ak boromam dindil nañ ko ko Cheikh Tidiane mu ne voilà la porte buntu baa ngoog yàlla may ko janoog jëmmi yàlla ji Cheikh na Ahmad Tidiane mooy wax dafa am kamalu nazra ila zaati janoog jëmmi yàlla gu mat sëkk janoog jëmmi yàlla su matee ñaar dootuñ fa nekk ngeen baal ma jëmm mais janoo gu ànd ak xol bi doyloo ne li ma janoot la seytaane naxu ma parce que dafa am foo xam ne soo fa yeggee seytaane dootu fa nekkati kon loo janoon rek kenn melalut sa bët yi mbir mi daal mu ne la soo ko bëggee xam li njëkk mooy muhaadara da ngay teewlu nag yàlla nga soxla dangay ngay teewlu soo demee ba loolu nag soo ko bëggee xam mooy mu taalaa mu taalaatil xaqaayiqi min waraa istitrin kasifin day am nag rideau bu jaar sa diggante ak moom départ naa sëñ Mouhamad damaa soxla yàlla man gis naa ne Mouhamad mii dog na xijaab yi xam na li feeñ xam na li nëbbu nekk na kaamilul irfaani nekk na imaam nekk na saalex ma ñëw ne ko damaa bëgg a dem ma mënta am istixdaaru nafsi ci yàlla du ma dem mënumaa toog foofu sama xel mi ma def ko ca terrain football wala sama xel mi ma def ko ca làmb ja ba nga xam ne waxtu yi muy wax naa maa ngi naan ku ku daane ci làmb ja diw diw de tey lañu war a bari kuy daane kon soo li la tax a jóg li la ñor danga ci war a am ak teewlu bu boobaa nag léegi sa digganteeg yàlla benn rido rido fi des mu caché fa nag soo ko amee mooy rido bi effacé nañ ko loo am jàkkaarloo kon léegi mushahada jàll si nga ci mushahada yaa ngi janoo ak moom léegi nag beneen ridoom fii mooy yow yaay yow moom mooy moom yow yaay yow mooy moom mooy moom te bi nga bëgg moo gën a rëy boobu Cheikh Tidiane ne boobu doyut étape de transition la rek dafa am foo soxla départ nga foog nga jaar ci yooyu danga jaar ci muhaadara da nga jaar ci mukashafa da nga door a jàll nag ci mushahada nga daal di janoo nag ak li nga xam ne yow moom nga soxla woon dafa yëpp foofu parce que moom moo nanguwut nga toog mu toog nga di ko xool mu di la xool mu mel ni ñaara am moo tax foofa soo fa toogee du yàgg mu aaya na mooy am da ngay doon jëmmam ji daf lay def jëmmam ji dafa yee sa nelaw gi nga mën a xam ne li baaraam doon ci Muhammad moom nga doon ci li nga soxla woon ki ngay seet mooy yow ku mënul loolu Cheikh na Ahmada Tidiane mun a doo sëriñ buy war a topp ci yàlla mën nañ laa topp ci sharia bi mën nga li ci téere yi xam nga nu ñuy jullee xam nga nu ñuy ooree xam nga nu ñuy takkee sëy bu yàqoo xam nga ni ñuy defaree bu lii demee naw ahkaam yi xam nga leen nit ak sharia nga nañ la topp ci loolu waaye jumbu la ci yàlla jumbu la ci yàlla loolu moom kan ko soxlaa ci moom daf laa war a mën a def ni nguru di def nguru dafay force sax dugg ak moom ci biir génn def ko nguru nguru sax lay for dugg ak moom ci biir génn sànni ko ci biti muy nguru ni moom moo tax bàyyi daf lay fekk jolof ne la cas def la bàyyi fekk la Ibadan ne la cas def la bàyyi fekk la Chine ne la cas def la bàyyi fekk la États-Unis ne la cas def la bàyyi fekk la Bergamo ne la cas def la bàyyi fekk la Lecco ne la cas def la bàyyi su ko defee bàyyi yi bëri te kenn amul ku dul benn bàyyi loolu mooy mu aayana daf lay daf lay wann ñaar dootu fa nekk muaayana googu nag soo fa yeggee xayroo xayri ya dafa amatut loolu la ñuy tuddee saxqu wala maxqu wala tamsu te yëpp xam nga lu muy firi mooy raaf rek effacé gis nga baat yu rëy yooyu xam nga lu muy firi mooy nekkatut su ma jëlee crayon daal di koy bind benn alif ci kayit gi su ma ne su ma ne nit lii lan la bu loo may wax alif su ma ko effacé anama du bindoon nañu alif alifam fa nag waaye nekkatu fa ci zaahir parce que baati na ko won alif moom am na te dootu ñàkk moo tax lu effacé wu ci sa bët yi la effacé wu mais mi fi.